di rafetlu nag ci première mai bi xanaa maanaam dañoo daje tey fii askan wi ñëpp ci mbiram travail bi ñu boole ci transport transport nag am na jafe-jafe ci département Mbacké bi kon yàlla def nag bu ñu ci wooyee suñu jafe-jafe dañ ko ñu mën a jàllale liñ ci jotee jëlee nag mooy jële nañ fii loo xam ne maanaam tey mën nañ si ko jàllale ci rajo yi ak télévision yi di sant yàlla nag bu baax ci jataay bi ndax secteur syndicat yëpp dajaloo dañ fi jël li leen naqare département bi ak leen naqari ji ñii liggéey ñëpp ñu jëbal ko kilifa ñu mën ko yóbbu ci préfet kon nag ñun liñ ci naqari mooy li fi daa jaar te jàll te daal fi ñëw ñi ngi ciy gis suñu bopp ba tax na am na benn projet boo xam ne man tey gouvernement bi génne nañ ko barki démb jox ñu ko te ñu ngi ciy dox ci oto yoo xam ne man tey ay 7 place ak i 11 place ak i 14 places yoo xam ne yëpp ay clim la te fas yéene nañ ko andi ci département bi ñëpp mën koo jëriñoo loolu rek xeex la boo xam ne maanaam ñu ngi ciy santaat yàlla baax ci département bi ah, te li koy waral nag man ñu ko may mooy jataay yu mel nii ñu koy fekkee fi ñu koy nasee ak fi ñu koy jéemee yépp nga di ko fekkee. liggéey mooy liy libéré doomi aadama liggéey mooy liy defar doomi aadama liggéey mooy liy dundal doomi aadama liggéey bokk na ci ponk yi tax yàlla suñu borom wàccee ñu ci kaw suuf ginnaaw liggéey ñu jàmm kon liggéeykat bu amee benn bis muy premier mai jaadu na centrale yi comme niñ ko defee tey Mbàkke ñun ñëpp dajale leen tey ci maire bi ñu waxtaan ci échanger yi ci problème mu liggéeykat yi ak saafara yi ñu ci mën a indi. fi mu toll nii secteurs yu bari ñu ngi grève moo demee ci jàngalekat yi santé euh, ci collectivité territoriale yi maire yi ak ci secteur formel bi ci yu bare bare bare ñu ngi ci ay ay jafe-jafe. ndax jafe-jafe yooyu aujourd'hui tey surtout le domaine de l'éducation li ko indi mooy njiitu réew mi dafa instruire ay ministres am waxoon leen ne nañ signé ay accords yu réaliste ak réalisable kon bu demee ba tey mandat président bi war a jeex ci 2024 war naa fekk kon ñu éponger le passif sociale maanaam li nga xam ne moom lañ doon xaar war naa ànd ak mandat bi yegg ci jàmm ak salaam waaye kon ba fi mu toll nii bu amee yenn yu ci des rek kon liggéey bi dafa des loolu mooy le passif social boobu lañu ñu vidéegul loolu moo waral euh, juste tey ñu taxawaat ci amaat ay revendications yu bare bare bare yu taxaw yokk ci nag ay revendications de conquête mu amati aussi ay coppite yu bari ci àdduna bi mutation sociale yi nga xamante ne dañuy xëy rek euh, tey nga dégg ci am réew nit ñay saagante ka boddikante xeet looloo tànk yooyu bëgg dox nag yegg si ba ci Sénégal dafa am kaaraange bu war nag réew mi ak ñi ko yor ñi koy doxal ñu taxaw réew mi ba loolu bañ a dugg ci Sénégal muy terrorisme ak insécurité ak violence ak injure de n'importe quel yooyu yëpp kilifay war ci taxaw. taxawaay boobu moo ñu may mu doon obligation moo def. loolu ay obligation mais taxawaay boobu aussi moo ñu jox ay droit droit yooyu mooy wara ñuy de ay yëng ak yëngal ngir yëglu saa yu amee nag wala muy bëgg a am dañuy avertir gouvernement ni ko ñu ngi bëgg a yëngal par un préavis loolu mooy dajeel ak ñun waxtaan ak ñun bala moo ëpp dayo su ko defee mu wooñu parfois sax moom dañuy taxawlu ba mu passé ba ñu jóg ba ñu grève ñu a mooy li fi amoon année yi passé ñu grève ba toog gouvernement bi tënk benn protocole tënk ko mu am ay poñ dont le système de rémunération mu def ci ay effort il faut le dire des nag ay poñ yoo xam ne wax dëgg yàlla c'est le c'est le boo xam ni day ñëw ay ati ati ati ati saa yi ñu ko defee rek suñ ñëwee ñu boole ko ci plateforme gouvernement bi day mel ni day dummoy mu mel ni mooy le cas des décisionnaires le cas des décisionnaires war nañ cee jógal ndaxte ay jàngalekat yoo xam ne en quatre vingt quinze cas yi ñu ko créé le corps des dañoo engagé wu pour servir seen pays te amuñu droit def benn diplôme ñu dem ay at at ñu xañ leen ñuy présenter seen diplôme ba tax na bi ñu ko présenté am seen diplôme bi muy génn dañu âgé dugg fonction publique doon ay décisionnaire ñu waxtaan ci nguur gi ba juboo ñu war ko corriger ba léegi gouvernement bi wax dëgg yàlla waxu ko ci lu leer loolu daal wax dëgg yàlla ñu ngi ci xolu jàngalekat yi les cinq mille enseignants dégg nañ ci ay ay ay ay ay jéego ak ay poñ bu ma ko fee lim du ma fi jóge defe naa ne buñ dellee demee ci protocole bi di ngeen xam ni am na lu bari lu des loo xam ni gouvernement bi dégg euh, taxawaay boobu nag mooy gis nga nit doo xaar ba ñu sëkkatal la nga doog a jóg di woote ay su yàggee manque de confiance rupture de confiance day am ñun ak gouvernement bi te bëgguñu àgg foofu su fekkee ni def nga loo xam ne syndicalistes yi ab rafetlu nañ ko muy ay jéego su desee ay poñ dañ ciy góorgóorlu balaa nag wax dëgg yàlla muy ëpp muy ëpp ay loxo ndaxte yaakaar naa ni ci ay fan néew ay fan néew je bien su fekkee du gouvernement bi boo tëwul vraiment ay waxtaan won ñu ni lii kat dinaa ko def je crois que école bi dina yëngatu te loolu du suñ bëgg-bëgg parce que ñun suñu suñu vocation du ay suñu intérêt bopp kese les syndicats objectif am mooy objet am mooy défendre intérêt jàngalekat mais aussi défendre éco intérêt jàng élèves yi ak intérêt en général de l' sénégalaise. loo gis mbooloo mooy doole te centrale yi bu dajee itam defe naa ni. pour seen survie la parce que dabor danoo war a dajaloo parce que réew mi fi mu toll actuellement dajaloo dafa jot tasaaroo moom bu amee rek fu mu toll ni bunt dina feeñ foo xam ne bii doo ko bëgg moo tax tey jii pour la première fois ñu daje fii xëy na daanañ daje sax mais bii yoon centrale yi nga xam ne ñoo gën a mag Sénégal dañu daje pour def la fête di premier mai te itam liñ ci jubloon mooy li nga xam ne li banqaas seen tant ci nga xam ni mooy bureau confédéral mooy jafe-jafe am ak dialogue bi nga xam ne fii dafa war a am parce que d'ailleurs syndicat du question loo xam ne lii dañ nekk di xeex wala di xuloo mais dana war a booloo askan wi gis seen bopp tey jii problème yi am ku nekk xam na ni euh, la vie est chère dégg nga dund gi metti na euh, mais itam dafa am loo xam ne lii lu mu jublu la mooy ay échange yu bëri te fi mu toll nii liggéeykat yi fi mu toll nii ñu bëri dañoo jaaxle parce que bu amee crise mondiale te ji liggéeykat yi ñoo ci gën a sonn parce que dana am période boo xam ne bii entreprise yi dañuy wàññeeku liggéeykat yi ni leen war a fay duñ ko am je crois que loolu bu amee itam war na mën a prévoir ni faw réew mi jëm balaa muy agsi war nañu def bloc seet waxtaan profiler dialogue bi pour que Sénégal fi mu toll nii am loo xam ne lu mag li ci ëpp prioritaire mooy d'abord euh, adduna bi xam nga metti na te réew yi nga xam ni ñoo ñu wër euh, tey jii defe naa ni ñoom seen biir. ñoom ñoo ñu ëpp problème kon loolu ñoom lañu daan jox bu fekkee par exemple loolu ñun amatuñ ko te mu nekk loo xam ni ñoom ñoo ñu ko gën a soxla te du ñu ko jox ñu ñun suñu mbër lépp dana cher fi mu toll nii mais état bi dañu war a xalaat ni war nañu mën a dajaloo pour que lii nga xam ne lii moo nar a yokk ci àdduna bi muy ci jumtukaay yi muy ci lekk gi ci naan gi ak lépp li nga xam ne lii fi mu toll nii mooy euh, liggéey bu pare boo xam ne bii bu taxaw la. je crois que fi mu toll nii bu fekkee ñi nga xam ne ñooy fay amatuñ ko je que dañuy daal di tëj entreprise dana tëj moo tax fi nii dajaloo bi baax ñu seet nun mën a jàppale waxtaan ak gouvernement bi nag parce que léegi xeex dafa war a xewi danoo war di waxtaan te gouvernement bi tam gis travailleurs yi waxtaan ak ñoom seet li nga xam ne mën a nañu ko jàppale pour que fi mu toll nii yokku yi ak yi nga xam ni am-am yi mu mën a wàññi. moo tax dajaloo bi parce que danoo wa euh, yokk ba euh, wàññi tuuti mbir yi dañ koo wàññi sax parce que yokk bi dañ war a waxee yokk àggul mais kon nag fi toll nii bu ko fekkee dañoo joxe gauche jëlaat droite mais kooku baaxul loolu mooy problème bi moo tax fi mu toll nii nag les question que ñun ñu dajaloo tey jii nekk benn dank pour que loolu nga xam ne mooy am ànd ci ak état parce que état yitam li muy def nii métti na mu ngi subventionné mais itam ça ne suffit pas. te il faut ñu def passer information bi tam nit ñi xam ni réew mi fi mu toll aussi nan la travailleurs yi xam ni itam itam lu ñu waroon di def avant que ñuy def seen liggéey di nekk ñu leen di dàq wala dara wala ñuy wàññi liggéey liggéeykat yi te tey ji bu seen syndicat yi taxut paccaxoo day am mais Sénégal xam nga fi mu toll ku nekk soxla pétrole bi fi mu toll nii adduna bi yëpp Sénégal seen bët Sénégal la jëm ñëpp fi mu toll nii ñu yaakaar ni Sénégal fi mu nii waroon ko mën a cotiser pour jéem a am ci pétrole mais loolu nag moo tax fi mu toll nii war a ànd syndicats yi war a ànd pouvoir public yi ànd seen euh, même parti politique yi ànd du kan loolu c'est important parce que fen jëm buñ ci amee paccaxoo rek dana am keneen ku ñëw jël mbir yëpp te loolu mooy musiba Sénégal kon loolu war waran ko mën a prévoir tey jii waran mën a ànd syndicats yi ànd secteur informel secteur public bi euh, cadre yi nga xam ñoo fi nekk ñëpp ànd je loolu mooy njëriñu Sénégal